li ma ci gën a amul solo may juste euh, justice xam nga dañ koy rendre au nom du peuple. donc peuple boobu euh, daf ci war a yëg boppam. Mm-hmm. donc euh, yenn lenteur yi doon am yenn jafe-jafe yi am yenn gàllankoor yi mois je pense que bu ñu génnee ci assises yi. Mm-hmm. war nañ ci mën a gis amélioration bu ñu yëg lool. Mm-hmm. parce que man sama conviction mooy. tëj moom tout le temps exception la war a doon. Mhm. te Sénégal liñ fi yàgg nemmeeku mooy dañuy tëj ba pare dem jéem a wëri yow lan nga def ak. xool yeneen mhm. alors que. Euh, tëj bi euh, moom moo war a doon exception. Mhm. liberté moom moo war a doon règle. donc en quelque sorte. yooyu tamit dañ ci xaar bu baax euh, lu mel ni assises yi. donc tamit léeg-léeg lenteur yu doy waar yi nga xam ne tey da ngay téye benn doomu jàmbur am ñu nekk ci ginnaaw muy chef d'entreprise walla muy borom kër. après ñu koy renvoyer renvoyer parce que mm. peut-être ñi ko war a juger ñu ngi ci seen sago mm. ñii ñu ngi ci ay congé ñii ñu ngi ci ay waxtaan léeg boo ñëwee ci euh, cour yi cour yi tribunaux yi da ngay am sax gàcce leer ne tey am na koo xam ne lañ koy tu lañ koy tuumaal mu am mu ñàkk am yoo na ko yoo na ko woo mais nga sentir euh, yenn comportement d'écart yi nga xam ne tey euh, jaaduwul. Mhm. Euh, donc parce que ñoom c'est vrai que seen liggéey ñu ñoo leen jox yenn délégation de pouvoir pour ñu def seen liggéey mais nit ki tey bu ñëwee jógee prison wala mu ñëw garde à vue yow xoolal coono ba mu nekkee xoolal la ci ginnaawam. donc yooyu yëpp y a beaucoup de choses à